nga fu mu nekk ñoom Benteñe. mu mel ni dañoo bokk tegtal. waaw taf ñoom ñaar ñëpp. waaw Benteñe ak Tafatine. mu mel ni ñoom ñaar yal na yàlla ja waaw ñoom ñaar dañoo bokk tegtal. Benteñe Tafatine. ñu xool la ñuy def waaw waaw faxas raxas Tafatine Benteñe waaw. Essan. stade Diaw Macodou Diop waaw mu mel ni tey jii café waaw tey ñu suukar béqal kan moo waral loolu ñu sukar bisaab <laughs> tey ñu suukar leneen ak leneen man ak man ak Lamine bu ma laqatu lama laal nga laal Benta Diaye ak Tapha mu mel ni tey jii ñaar seen na du ngeen ci lamb la pind ba ngay di xas-xas open presi. signature contrat yi yëpp wax leen woon lii kon li ngeen ñu waxoon mooy kenn ku nekk da nga doon sa morom maa la ëpp doole maa la mën kon nag jeexal leen combat bi ñu dem ci yeneen i comba nda combat yi des nekkul benn combat nekkul ñaari combat. vingt et un dakk Leewtoo bi wàccee garde gi jokkate waat na Tapha Tine tafaatin et un tuuti moog vingt et lan la ñuy def vingt et day dem am Tapha da koy xaar lu ci kanam raw tëbët. Bente Ñam moo ñu féete suñu càmmoñ Tapha Tine féete ñu suñu ndeyjoor ngemboo ngemb lu ñuul yi kon Bente Ñam fi mu ne ak Tapha ñoom ñaar. er Baba. ñemewu ma Tapha Tine. lu tax nga wax ko. waaw ma Tapha damaa ragal mbër mu dal. mbër mu dal tey liir combat dama ko ragal. Ah. te pied gauche am. gisatoo baaraamu dey ba ci suuf. te loolu daa bokk ci làmb. boo seetloo taxawaayam. lenn rek fi mën a am. ñu daw sonko mu jum ñu jumloo ko. waaw fu mu ne ci loxoom la féete. xam fi mu nekk la ko topp ci moom ak ba mu fi mujjee Tapha Tine nit ñu ngemb ko mu préparé ñëw am loo xam ne Tapha fi mu nekk kenn déclenché gul fu mu nekk ku ci nekk ngi xool sa morom mais Tapha Tine fi mu nekk mu ngi koy xool nangul Berte Diène yenn saa yi mu léew too bàyyi. léegi lan lay xaar fan la war a jaar. mais gëm naa ne Tapha xeex la bëgg. waaw moom moom la sax. gëm naa ne Tapha Tine xeex la indi. xaw ma lu ma xew. mais droitam bële ci xeex la ko indi fi mu nekk. droitam bi mu denc. waaw ko sa waay ni bëri ñu dox dajale ci xalaat bi mu nekk tey xam naa ni suñu jàppante di nga gis bëre avertir nañ leen ñoom ñaar arbitre bi avertir nañ nee leen kaaro yande bi taxaw maa jóg waa mu mel ni père Baba mu mel ni père Baba lii daa mel day bëgg a nekk phénomène coach bu ñëw toog ñun la jógal parce que amoo carte licence kon ñi nga xamante ne ñooy coach yi war nañoo dem defi formation stage wu doon coach am say diplôme ndax man chaque jour lu ma nit di jamee dama koy moytu am na milieu boo xamante ni boo ma fa bëggee teg te yorumay kayit dama naan la fii du ma fi toog waaw moo moo jaadu fu mu nekk am na leen loolu boo ko bëggee da nga cay nekk-nekk ba am ci li la ñu laaj yëpp nga xam ne di nga fa nekk xam naa buñ ci jógee mën na am information bi jàllul na mu war la jàll wala leneen waaye buñ ci jógee incha allah ñu seetaat leneen parce que tey Thiès bu vide dafa rafetul dara parce que course dafa am solo lool gis nga nit ñi naan entraîneur ku jóg mën nga ko nekk déedéet déedéet du lool de du loolu waaye gis nga ki nga xam ne mooy tafaatin xaw na déclenché waaye fi mu nekk ki nga xam ne mooy bénte ñi dafa def benn rotation waaye fi mu nekk li nga wax dama ragal ne bénte ñi tafaatin lu turandoom def xeex la bëgg andi fi mu nekk. dafa am daa bëgg xeex wax naa ko ci njëlbeen xeex la bëgg waaye bu ñu mu am moytuwul seen lamb ci avertissement lay bëre ndax benn nit rek mooy tàllal loxo lii ñuy def nii du bëre lii ñuy def nii du lamb dépp ay rotation rek la ñuy def te lii di jeexalul lamb te waxuñu woon lii Tapha Tine ku gaucham bi muy sànni per baaba gëmu ko ku ba mu soxla mooy droite ba ñu dox daje. waaw loolu lañ soxla men parce que boo xool ñoom ñaar ci sport la ñuy wax boo dee liir day mel ah jàpp daw na jàpp ko. jàpp na ko Benteñe jàpp na Benteñe jàpp na est dina ko mën a demam déet est-ce que am na entraînement bu mu ko yóbboom déet. waaw lu doy waar lu doy waar la nag. waaw maanaam loxo ta loxo tabaatin ba mu gàll ceeg poqutaanu gauche ba. waaw loxo tabaatin ba mu bàq ca boobu gàll ceeg poqutaanu droite ba. xoolal tay luy xew. xoolal tay luy xew. wéyal day xew wéyal day xew. wéyal day xew wéyal day xew waaye est-ce que dinañ jóg. day rëpp dañuy rëpp dañuy rëpp dañuy rëpp dañuy rëpp laa ilaaha illallah dañuy rëpp boo yëkkatee sa loxo daanu tafatin boo yëkkatee sa loxo daanu fi nga teg sa tànk baaxul waaye benn ni ngay ñëwee baaxul benn ni ngay ñëwee baaxul benn benn benn boo moytuwul ngay daanu de tafatin bu jóg mi nga def baaxul tafatin mi nga def baaxul waa benn xale yi mënatuñoo bëre tegal seesaan na fii tegal siis am na fii ah, waaye nag fa mu lonk tàgg ba eh, ah lii lan la lii lan la lii lan la ah tawatin daan na ko ah non dañ koy dellu si après arbitre bi sifflé na waaye nag Père Baba waaw lamb su jógee ci biir jeexee ci biti arbitre war nañ cee bàyyi action continue la action continue la waroon waroon ko mën a valider action continue waroon a sifflé action continue ndax ci biir lañ jógee jëm ci biti waaw kon mu mel ni tey bu yees arbitré woon wala nga ko arbitré ah. Tafatin eske est-ce que fi mu dina ko amoon. dañoo bokki tegtal. waaye Benteñe ni mu doon ñëwee dootu ko ñëwee. Ah, dafa mel ne Tapha taxaw ci entraînement. nañu ñamante waat tuuti nga xool parce que tey fi ko fi ko su ko fa Tapha Tine loxo doon gémmiñ te du yóbbaale tibb. li Benteñe doon def sànq. bu combat bi dox ci kaw det def. may ñu dem dox te dañu dem laal laal radi nag ñoom parce que dañuy bëre laal radi le mi-temps seen mi-temps amul radi mel ni tey Père li ma gis ci service d'ordre ci biir ci biir ci biir làmb ji tey gëj naa gis ñu toll ci service d'ordre fii ci biir kër gi. c'est normal parce que tey jeunes yi ñi fi nekk xale yi nekkaale application yooyu. te tay lamb tay li ñu ñëw ci public c'est normal fu mu nekk ni pour éviter problème violence waye ñun ñëpp ku nekk su doonon sa alkati bop fokk na duñ bama xenn duñ ne kenn demal fenn ku nekk su amé yar bo génn sa kër ñëw fi ba bañ gis leen maag yoy mën nga fee dem ba génn wax deug yalla luñ lay wax rek moy père man damay faral di wax ne boy suñ dé visiter yeen say damay romb sax ñu naan ma père demal demal motax amna yeen yo yenn nit ki ci comportement am mën na la may lu nekk. waaye am na comportement yoo xam ne boo ko yoree wax dëgg yàlla nit ñi buñ la nawloo. mais Baba mu mel ni tey boo ko dee xool man dama koy faral di wax ci sama interview ma ne xale yi ñoo jur xale yi xale yi yaratuñu. waaw xale du xale. déedéet xale du nax xale. xale mm. xam nga ñun suñuy bàyyi dañoo amoon bañ gàcce boo xam ne soo ko laajoon tey xale yi ne leen gannaaw ba sàkket ba nekkee bañ gàcce ga loolu yëpp bu la neexee dugg waaye dafa amoon bañ gàcce. di ko fekk kër waaw parce que loolu yëpp li lay jàngal mooy tey mbañ bañ bañ gàcce yow mi ñëw tey nee nañ la bañal gàcce moo tax ñu def la loolu bàyyi da daan wul si foofu xàddamiku fekk ñoom yaay nu ñu koy ñu defaraat seen taxawaay ñu dem ci combat bi. waaye ñu delluwaat ci combat bi ci diggante Bentangé ak Tapha Tine waaye mel dañoo bokk tegtal waaye Bentangé la mu defoon. ba tollu woon bañ toll ko fañ ko tollu won gëm nan dotul gaaw waaye lamb ji taxaway moy gaay gëna gën gaaw tax arbitre international ba ma doon wax ak dé dra waaw Dramé ngi nii ndeysaan muy sabu ties arbitre international machallah waaw bu diké arbitre yëpp xam dra Dramé ñëw na yalla ko cërale lolu ndeysaan tafatin numéro 2 ak ki nga xam moy mooy tafatin nga bëgg dox ci kaw Benteñe benteñ a koy xol tafatin dugal na wa buus na baaraamu déy bi tafatin benteñ a benteñ a koy xol benteñ a aj na garde gi di tibb suuf daal di raax ci loxo yi est-ce daf koy tibb pour li melni beut melni tay baba tafatin berum tank la tafatin berum tank la tafatin berum tank la ba pare day xex de wa limi limi mooy chaque fois sa waay daw touché ko ñu daw jàppante heure bu ñu tolloo fañ tolluwaat di nga gis waaw waaw waaw gis nga Tafa. waaw décroché na benn ki fi mu nekk waaw waaw non non daf koy daa bëgg mu ñëw gis nga gis nga droite bi droite bi gaaw na non droite bi gaaw na non non droite bi gaaw na benteñe bente benteñe benteñe sóoraale na loolu benteñe moytul ñu lënk moytul ñu lënk la benteñe waaw non non Benteñe Benteñe Tapha mu ngi lay dugal ci piège am Tapha fu ngi lay dugal ah, Tapha ngi lay dugal ci piège am mu ngi koy dugal ci piège am Tapha dugal na la ci piège am Tapha dugal na la ci piège am Tapha dugal na la ci piège am Benteñe Tapha dugal na la ci piège am Tapha Tine borom tànk la Tapha borom tànk la Tapha borom tànk la Tapha borom tànk la Tapha dugal na la ci piège bi dugal na ko ci piège bi wax naa ko bul ñëw dugal na la ci piège am doon na la ci piège bi.